merci jërëjëf en fait je je ne pense pas en fait ça en général syndicalisme ministre bi non nous on pas dans ça pour vous confirmer que ñun. parce que c'est pour vous dire parce que. même par rapport au ministre c'est pour rester même poli par rapport au ministre parce que lu mu wax tegu ko fenn parce que le ministre on va le voir ce ce soir. daañu ko gis man ko daañu ko gis te il ne nous dira rien de nouveau en fait on y va par politesse mais suñu nekkoon loolu Euh, le CES ñun wax na ko léegi ñun 2022 mille ñu nekk à la tête du CES mais toog nañu un an amul benn mouvement toutes les questions on les a réglées simplement sans aucun même protocole bi am nii y a jour de grève aucun aucun ñun lii li ñu tax ñu génn ni c'est pour ñu jàngale du leneen lu ñuy lu ñuy te lu ñuy wax yëpp c' est des questions qui ne vont pas vers les enseignants ci soo xoolee poñ yi man je vous laisse document mm-hmm. c' est des pour la qualité ni seen sa collègue souligné c' est pour la qualité c' pour la qualité de l' donc ministre bi du question égo cest à que ñun suñu ko toppoon tey du ñu dem sa sa rencontre parce que il nous a snobé pendant des mois topp ñu ko parce que dem nañu gis ak ñoom njiiti réew mi am na kàddu bu ñu ko jottali jàllale itam te jot na ko donc du loolu mais dañuy dem par politesse pour montrer à tout le monde qu'on se préoccupe moom kay moo nekk tal leneen ci affaire parrainage ak ay il est pur dans ses fiches de parrainage moom mu ngi ci loolu mais ñun nekkuñ ci loolu ñun ñoo ci université mosuñu fi génne te soo xoolee situation bi yàgg na c'est la première fois ngeen dégg ministre depuis mois de juin muy wax waxul mu ngi un euh, euh, euh, conseil interministériel pour préparer la reprise ak li fa amoon yëpp. laajoon na à la reprise octobre ñu def conseil interministériel xoot nu ñuy reprendre mais nekkuñu ci woon dynamique reprendre moo tax kenn deful loolu depuis lors ñoo ngi alerte lu ñu ju bare alerté nañu soo xoolee ñi suivre SAES dëgg xam nañu dañu alerte plusieurs fois ñun balaa ñuy génn dañuy yëglu dañuy waxtaan ci suuf lobbying ah alerté moom mi xam na bu baax li may wax te li mu wax ci démb ci télé bi du ko wax sama kanam. mais mais est-ce que nekkul tamit benn benn benn situation bu nga xamante ne. Mhm. bon parce que à chaque année. dañuy gis ne bon syndicalistes yi dañuy génn que soit mu salle de classe bi baaxul euh, enseignant bi dañ kaa dóor fii est-ce que nekkul ba voilà sa sa euh, indemnisation yi à chaque fois. que euh, dafa retard est-ce que loolu nekkul par exemple benn benn caricature boo xamante ne après dafay ñëw chaque année que enseignants yi finalement li ñuy wax ba dañoo bëgg lu yomb dañuy laaj de trop est-ce que nekkul euh, lan nga lan ngay tontu si loolu. non non mais ça c'est encore les clichés moi je pense que en fait euh, essayer pays sans enseignants vous allez voir. non loolu c'est une catastrophe. non non kon on a qu'à essayer un pays sans enseignants xam nga nit ñi tam il de penser mm. une personne normale. avant d'être un ancien, on est d'abord des personnes. C'est que la stigmatisation des anciens dans ces pays-là, ça pose problème. Parce que Non, non, mais pourquoi on demanderait trop Pourquoi on demande Vous pensez qu'on demande trop Sauf les décrets IRH hors échelle. Les premiers fonctionnaires de ce pays-là, c'est des enseignants du supérieur. Hein? Sur le décret, sur le classement, les sept premiers, c'est des enseignants du supérieur. Même magistrats, IGE, ils sont assimilés. Ce n'est pas à des, critères internationaux pour passer le CAMES est là donc c'est pas euh, je voudrais pas nekk ci yenn débat mais il faut Alors, comprendre quand même que mm. stigmatisation boobu foog ñu wàññi ko parce que lu tax c'est normal tey suñu leen fayul yaakaar naa ni euh, borom suñu leen fayul lan ngeen di def c'est normal vous pensez que c'est normal de travailler ba fin du mois fay ñu la vous pensez que c'est normal nga nga am ay malade sa famille malade nga dem bu hôpital ñu dàq la parce que prise defuñu ko ça c'est léegi bari na ay poñ donc Euh, maa ngi lay dégg sànq ba léegi ngay wax su ma la déggee bu baax. ministre bi la mu war a def moom defu ko ci yeneen la nekk. non ci leneen la nekk ñëpp xam nañ ko ci li nekk nit ñi nekk temps yi ci la nekk donc euh, moom moom c'est que euh, je pense que quand même vraiment je pense que il est perdu en fait je pense qu'il est dépassé par la situation parce que il faut que mu dellu ci xelam parce que discours général bi ça ne marche pas ñun on veut des actions concrètes sur la la situation elle est là. mais wax ji mu parce que le discours était laborieux ah c'était vraiment un monologue qui est laborieux xam nañ ko je mais quand même par rapport ak li ñu xaar c'est clair lu mu wax il l'a dit sans s'en rendre compte parce qu'ils ne sont pas prêts pour ouvrir l'université Anta Diop et ça on peut pas l'accepter parce que demain je lance une su problème amee su non l'université en je parle de l'université c'est-à-dire que université la question même euh, euh, le campus pédagogique pare ñu pour ubbi ko pare ñëw pour ubbi ko ils ne sont ils ne vont pas l'ouvrir et suñ ko deful euh, quand même il veut remplacer cela par lancement à distance bi nga xam ne ça ne marche pas loolu la ñuy wax en fait les universités sénégalaises elles ont été pour l'essentiel yi ñu yi ñuy defar sur le euh, sur le modèle présentiel loolu mooy modèle présentiel bi mais mënoo ñëw di jour au lendemain euh, avec une baguette magique dire qu'on va dématérialiser am am je pense virtualisation intégrale